subaa nag tey dañu am di dalal nga xamante ni bii sax kenn doon ko présenté waaye balaa ñuy wax ko ci dañ dañ leen di wax leen déwénati di leen baal àq di leen baal àq di leen wax ni yàlla nañ ko yàlla fekkee ay déwén yu bari bari bari bari muy Cheikh Mouhamadou Mokhtar Sokhna moom am na lool si wàllu kër Saalum daal fii ci réew mi nag di dem réew waaye bu tudd bu yàgg lool demoon Saalum parce que dinañ amoon ko lool loolu dañu ko gis Cheikh bi ñëw nañ ci ñetti yoon di ko seet mënuñu ko gis ndax yàgg Saalum mais Cheikh bi balaa ñu gis laaj bi tam da ngay bàyyi ñu askan bi ñu ngi si ñu alhamdulilah waaleyna waaleykum salaam libaas ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di wax wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin wa radiallahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billah di la nuyu di nuyu waa Sunugal 24 yëpp di leen wax ne gëj a gisante bi du dara lu du li may wax toujours ñun ay baykat lañ ay baykat lañ dañoo dëkk ci àll bi di bay te nawet bi xawoon a tar rek ñu demoon julli ji yàlla ji taw ñuy mottali suñu liggéey loolu moo tax ñu xaw a gëj Dakar waaye ñu ngi jégalu ci tardement bi ci liggéey bi ak e, jafe jot beeg yëpp ñu ngi ciy jégalu bu baax askan bi te di leen ziyaarat di leen baalu àq ci julli gi di ñaan yàlla ñu fay ko at yu bëree bari maa ngi lay nuyu bu baax a baax di bi nag namoon ko loolu seex bi askan bi nag yóbbante na ci yow balaa mooy war lu jafe-jafe bi waaye fekk na xam nga liggéey boo ci nekkee ñu bëri di ci gis gisin woo xamante ne nii dafa xaw a ñaaw suñ ko xoolee ndax dëgg la mbiram sëriñ liggéey lu bu métti bu jël temps ñu am lu ñuy liggéey loo xamante ne nii mënuñ ko def fii ci dëkk bi maanaam mënuñ ko def fii dakaar il faut que ñu dem ba Saalum ndax lu mel ni reen boo ko buggee ut wala yenn ci ay garab il faut nga dem ba Saalum mën ko foo sàkku su ko defee boo ñu gisul rek wala ñu xaw a yéex tuuti rek loolu moom moo ko waral ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax ci jégalu ci ñàkk euh, jot bi ñuy jot xam ne euh, liggéey bi rek moom moo ko waral te bëgg képp kenn ku nekk euh, li nga xam ne wàccoon nañ ko ak moom rek ñu def ko loolu moo waral lool. baax waaw damay sant yàlla ci loolu ndax yàlla dafa yaatu la lool te moom rek a fi ne su nit ñi xamoon ne yàlla rek a fi ne rek jafe-jafe du am su nit ñi gëmoon yàlla jafe-jafe du am su nit ñi wóolu yàlla jafe du am te yàlla dafa yaatu te day tànn xoolal anbiyaa yi cent mille prophètes la yàlla yónni cent cent vingt quatre mille prophètes ñoom la yàlla bind muy ay anbiya mu tànn ci trois cent di ñett téeméer ak fukk ñett yónni leen muy mursalina yi ci biir mursalina yi mu tànnaat ci vingt cinq ñaar fukk juróom dugal leen ci biir alquran yemut ca mu tànnaat ci ñaar fukk ak juróom yooyu juróom tuddee leen ulul asmi min rasul mu yontu yàlla ibrahim yontu yàlla moussa yontu yàlla isa yontu yàlla nuux yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon xam nga ne yàlla dafay tànn li muy tànn noonu nag lépp ci la bokk tey mën ngaa am xam-xam di yëngatu ci wàllu zulmaani yu kii am xam-xam di yëngatu ci wàllu nuuraani yu lépp tam dafa tegee ci xam-xamu suñu borom subhaanahu wa taala ndax yàlla dafa dajal lépp bi mu dajalee lépp ba xam ne moom moo téye lépp moom ko dafa nag séddale séddaleem nag mu ngi dalee ci moom yàlla ci ahadiyatam ga ba mu fa taxawoo moom kenn nekk di yàlla rek dara newu fa lu moom kese dafa xam ne loolu manta nekk ak mbégte moom xam na ne moom yàlla la gëm na ko te wóor na mu ne nag naa si si signifié loolu wane li tax man mu ne yàlla la mu sàkk doomu aadama def ko muy xalifaam jël ci xam-xamam jox nit amut nit lu mu mënta def ci ñaan amut ñaan lu mu mënta def waaye nag mu fekk nga xam ko wala mu fekk. nga gëstu ci ba am ci lu la wóor ndax bari na ci nit ñi ñuy wax ci wàllu listixaar wàllu seet seet damay wax toujours ne seet yomb na mais gis moo jafe seet libaas seet yomb na mais gis moo jafe ñu bëri ci euh, sëriñ si ñu ngi mën a seet lool waaye mën nañoo gis gis mooy lan mooy ni dana am jafe-jafe yëkkati téléphone am woo la ne la lii mooy suma jafe-jafe wala sax mu ñàkk la ko wax nga defal ko listixaara xoolal ko seet li nga xam ne moo méngoon li war a faj ay xaajoom nga jox mu def yàlla faj ay saafaram te loolu ñu bëri yaa ngi dégg dañ ciy wuutee seet dama ne la yomb na waaye gis moo jafe ci wàllu listixaar na ñu ci sant yàlla bu baax yaakaar naa ne duma la wax yow waaye ñi ngay jokkook ak yow ñuy wax ci man ci wàllu listixaar sant nañ ci yàlla te loolu dama ci occasionné wu ci benn affaire loo xam ne gis nañ ko ci réew mi muy accident yu bëri gis nañ ko ci tali bi may lancé wu ci occasion bi di wax nit ñi nañuy def sarax li baax sarax yàlla moom moo ko digle subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax nee na danaa musiba waroon a ñëw sarax boo xam ne sax ki ko def defeewu ko sax fa dëkk ba musiba bi war a wàcc nekk waaye mu defee ko fu sori yàlla fànq musiba bi nga xam ne naroon na wàcc Dakar te maa nga defee sarax ba sa Saloum kon dafa baax gis nañ ci tali bi ay dee yu bëri yoo xam ne gis nañ ko ci te ci lu ci ëpp ay ndaw ñooy gis nañ tam ci géej gi na nit ñi téye seen doom yi ci wàllu listixaara ci li ñu yàlla won gis nañ ci géej gi ay xale yu bëri yu ci faatu ren na nit ñi téye seen xale yi football bi ci nawetaan yi maa ngi dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu nawetaan nañ ci bàyyi xel dañu fexe def jàmm ndax sport jàmm moom moo ko lal kon war na jeexee ci jàmm gis naa ci tam ay moor yu ci am nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne foo rek la. ci dama ci dama ci dama ci wax waxati ci di sant yàlla bu baax ndax li tax may sant yàlla moom mooy mooy maye suñ borom mooy séddale jël jaam bi jox ko neex joxe wut nag ci tur joxe ci mbubb mu rëy joxe ci oto bu rafet joxe ci kër gu rafet dina bëri lu nit ñi xeeb yàlla moom fonk ko lool suñ borom noonu lay doxee dana bëri ñoo xamante ne nii danañ gis nit muy dox ñu xeeb ko lool ndax la ko yàlla solal jëmm jëm na mel ak melokaanam na mel nga xeeb ko fekk na la koy yàlla di dee ci guddi bu tëddee du ko dee kenn ci kaw suuf su ko defee ñu ngi sant yàlla ci ñi nga xam ne jot nañ ñun ñu jot a jëflante ñoom ci wàllu papier man aw ma ci sikki sàkk aw ma ci tam lu ma ci nëbbu papier su ma la ko liggéeyee loo toogee weer bitim réew su fekkee jot nga si bagage yi soo ko utilisé weer da nga ma oo téléphone ne ma suma papier génne maa ngi sant nag. ay nit yoo xam ne du ma tudd seen tur waaye ñoom xam nañ ma maa leen di gërëm bu baax a baax a baax ndax yàlla dimbala nañu ci cooberam ak mbaaxam ndax yàlla rek a fi ak kàttanam ak man-manam ba tegtal yi ñi mag ñi déewoon pour ñu liggéey ko ci wàllu këyit pour ku nekk bitim réew na ci jafe-jafe génn ci dellu si waat ci jàmm yàlla dimbale nañ ci loolu ba li ñu ci mag ñi déewoon ci secret alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla tey ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm ñoom ñi nga xam ne ngi foofu di daan seen doole yàlla indi leen tamit euh, ci jàmm. libaas libaas na nit ñi bàyyi xel. suñ borom subhaanahu wa taala soo demee ci suratu yaasin yàlla mu ngi fay wax ci benn aaya ne al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tasxadu arjuluhum yàlla nee na keroog bés penc man dana kase man yàlla seeni bët seen làmmiñ seen cër lii di loxoog tànk di seede di wax ci yéen nit ñi nañ bàyyi xel bésu penc dafa am ñu bëri ñu ma xoo jooytu loolu ne ma ñun de dañuy gis ay nit yaakaar leen yëkkati suñu alal yi nga xam ne ñoo ko ñaq am ci ñoom yaakaar jëflanteeg ñoom ba pare suñ paree suñ leen yónnee xaalis ba pare bañ jël ko rek ñu bala ñu wala suñ leen ooyee te duñ leen jot loolu métti na te ñoom yaakaaree wu ñu lu dul yàlla. nit nag su la yaakaaree lu dul yàlla sagom jeex na dootul xam dara lu koy téye dafay yaakaar ne su dawee ñëw si yow suba ajom faju waay waay waay waay bu la nit yëkkatee jox la ko nga xoote ne sëriñ ga dangay ñaan yàlla bu nit yëkkatee àllam jox la waaye waaye la nga waxanteeg moom na ko def soo ko mënut ne ko mënuma ko doo ko mënut ne ko mënuma ko loolu rek la mais ku liggéey alalam ba ba ba dajale ko war ko jox njabootam yëkkati ko jox la pour ay ay yokkuteem nga jël alal ja ba pare pare su la ooyee doo ko jël wala nga boole ko ko boo whatsapp yooyu dafa rafetut ci ñun ñi nga xamante nii ñun ñun ñun ñoo oote ne ay sëriñ lañ du question sax sëriñ dafa nekk may yàlla koo xam ne yàlla moo la koy dee nga koy jëflante ak doomu aadama yi te nit bu la yàlla mayee lam la may war nga ci mën a dimbale doomu aadama yi ngir nga am ci ngërmaanal yàlla ñun nag ci buntu boobu lan taxaw lépp loo xam ne dañ koy def dañ ciy def pour dimbalante ci ak doomu aadama yi ba ma commencé di jëflante ci wàllu bitim réew ci wàllu këyit yàgg na yàggul mais képp koo xam ne nii jëflante woon ak yow fexe naa ba sa sa say say say say say mbir dem ba ci yow ba nga yegg fii ba Amérique fii ba Amérique am na ñoo xam ne su ma neexoon mën naa leen tudd fii ba Amérique ña fa fexe naa def ci GP seen i bañ jot ci fa li laay xam ne ñu ngi may gërëm loolu nañ ko nañ ko bàyyi xel waaw luy yàq baaxut ah nañ bàyyi loolu xel. Mhm. sax am solo dafa am solo ci nit dafa am nit ñoo xam ne rek yàllaa leen bind may leen bayre mag ñi tamit ci seen i secret banañ fi loolu looy jëfandikoo pour xam bayre soo xoolee ci ay alxuraan li muy rëy rëy rëy li muy bëri bëri bëri am na ci saar yoo xam ne ay aaya yoo xam ne ñoo ci gën a siiw am na ci musluwaay am na ci bayre am na ci boolante nit ak nit am na ci ku bëgg jëkkër wala ku bëgg jabar loolu yëpp lenn lu ci nekk rek yàlla suñu borom subhaanahu wa taala jël na ay waliyoom ñi nga xam ne yaa ngi dégg méngoo na leen jox leen secret yooyu muy dox dox ba egsi si ñun ñi kon nag loolu nañ ko téye te jëflante seeg nit ñi li nga xam ne moom mooy wàllu bayre dama ciy liggéey loo xamante ne ni da koy sangoo lii da nga koy takk bu dee góor nga bu dee jigéen moom da ngay sangu bu dee bu dee góor da ngay takk bu dee kuy jaay la ngay jaay ci nga koy wis foo mën a ne nit ñi bëri bëri yow lañ fay tudd. loolu moo xamul sax sikk loolu amul sax luñ si luñ si wax naan danga ko def tey wala suba nga koy xaar déedéet loolu boo ko defee rek incha mm, allah rabi taala da nga waaw sangat la koo xam ne dañ koy liggéey duñ koy liggéey fi ne Saalum lañ koy liggéeyee waaw ndax ci genn garab gu ñu wax wasoosoor dafay sax ci ci àll bi ci reen yi ci la liggéey lool ci juróom-ñaari taati ci la dagg euh, taat bu nekk ñu dagg fa benn reen boole ko lenn ci ay alquran liggéey la ko ci wàllu ubbeeku boo ko sangoowee foo mën a ne ci àdduna bi bu dee Sénégal nga nekk foo mën a loo mën a yëngatu su nekkee da nga ne ci benn bërëb di fa yëngatu ci place di liggéey xaw faa suufee sax da nga yokk su fekkee da ngay liggéey ci bërëb nga sangoo cangat googu ñu fekk dañ la war a wàññi fukki nit place bi yëpp di fukki nit danañ wàññi juróom-ñeent yow yow yow nga des fa su fekkee dañ la waroon a boole ci ñi ci ñu war a wàññi soo ko jëfandikoo benn fan soo ko jëfandikoo rek dañ la fa baax te day yokku garaat ci sa wàllu wàllu liggéey ci ci bërëb te dañ lay sopp waaw nit ñi dañ lay bëgg mm-hmm. Mm-hmm. muy tële dafa am ñaari façon nag yu ma ciy laaral libaas ndax nit ñi des fois da ngay gis koo xam ne dafay daf koy daaneel daaneel moom mooy comme lu lay ñëwal des fois mu ñëw tey suba du ñëw kooku su ñëwee su fekkee daf la dal euh, dañ lay liggéeyal loo xamante ne ni moom dafay arrêté mais su fekkee feebar bi la feebar bi moom moo la dal mutlaqan nga xam ne yow tey yëgatoo dara sa bopp kooku dañ koy traité. traité boobu ñu koy traité nag mën na diire jël une semaine wala deux semaines mais su fekkee ne dafay ñëw tey suba mu dem ñëw tey suba mu dem kooku moom dañ la ci jox loo xam ne léegi léegi léegi dafay tàggoog yow. waaw da ngay da ngay da ngay delluwaat comme ba nga amee vingt cinq ans loolu toujours dama koy wax wàllu télé moom dañ ci yor loo xam ne amuñ ci luñ ci neexalante wala luñ ci nekk di werante dañ ci yor loo xam ne dafa wóor képp loolu amul sax lu ma ci bëgguma sax di ci waxaat ndax wax waxaat leeral la ci suma côté man waaye lu bëri ñi may jëflante ñoo xam ne ko mbiram télé moom képp koo xam ne da ko am mooy la ko waxee boo xam daf lay ñëw di la daaneel su ma la jotee bu kàttanu yàlla su ma la joxee garab gi boo ko jëfandikoo yow yaa may oo man du ma la woo téléphone Mm-hmm. feebar yi loolu nag loolu loolu nag mbóot la waa loolu mbóot la xam nga mbóot moom mooy sirru loolu nag dama ko waroon a bàyyee rek su ko defee ñi nga xam ne ñoom am nañ métit bi su ñëwee fii weddi gis bokku ci la euh, su ko defee wàllu feebar bu mu mën a doon ndax des fois da gis nit ku tëdd xëy rek yëg ci yaramam loo xam ne nii musu ko yëg gis naa ko Touba benn soxna soo xam ne suma xarit la yàlla may ne ko feex léegi dafa xëy rek benn bés rek mënatu dox te jànq la ngi toll si ñaar fukki at juróom yàlla boole ñu ñu jëflante ba yàlla defal na ko feex ñu ngi wax ñi nga xam ne dañuy yëg seen yaram yi méttit yoo xam ne duñu xam lan la dem hôpital gisuñ ko man moom Momadou Makhtar Soxna man maa leen di wax ne leen képp ku ci yëg ci yaram loo xam ne day métti waxoo ma téléphone danaa xool lan la su ma ko gisee danaa la ci jox loo xamante ci kàttanu yàlla loolu dana saafaraw bu fekkee lu hôpital gis la xayrun wala bu fekkee lu mu gisu tamit xayrun incha allah rabi suñu la jotee loolu moom day dañ ci kàttanu yàlla. waa di sant di gërëm am na ñoo xam ne nag bëgg naa tudd seen tur waaye ñoom bëgguñ ko ndax ñoo xam ne rek waxtu bu ma ñëwee dakaar ñoo may jox kër gi may dal te fii ma nekk nii ci dakaar bu fekkoon ne damay génnee suma alal di def xam nga ne yow fii nii nga ma fekk euh, euh, lu bari la ci alal waaye ay jaam yàlla ñoo koy jël jox ma ngir suma liggéey loolu nag dama ci sant yàlla bu baax a baax ndax dama lay waxaat benn kàddu yàlla dong yàlla kese yàlla rek moom mooy ki man xemut ci loolu nag dafa am foo xam ne boo fa àggee da ngay jël yàlla teg nee jël sa bopp teg nee jëflanteeg nit ñi ci lan lu leer li nga xam ne nee nga yàlla la ko dénk ndax bi am doom jotee ñu ne yàllaa la bind dafa jël yaay ji jël baay ji jël leer def ci baay ji mu ànd ak yaay ji doom sosu sax foofu yàlla génn na fa bàyyee yaay ak bàyyi ñu ànd ba doom sosu ci yaay yàlla ñëwaat ji responsabilité am kon am na foo xam ne nii da fa xaar yàlla wala am na foo xam ne da nga fa yaakaar yàlla wala am na foo xam ne da nga ne ci ci kàttanu yàlla waaye am na foo xam ne nag doo mën a wax ci kàttanu yàlla da a dëggal li nga yor ne am nga ndigal te wa daayan ilallaahi bi isnihi la yàlla wax ci alquran bu fekkee ne da ngaa am ci oote yàlla ndigal yàlla jox la ko am na foo xam ne boo fa taxawee da ngaa war dëggal ne yàlla jox la ko ndax yonent bi sallallaahu alayhi bi ko yàlla yónnee ba mu xam ne fi mu ne nii yàlla yónni na ko yor na nu boobu tukki yàlla nag daf ne ko nag gëmal na nag yonent nga amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rasulihi loolu la ko yàlla waxoon gëmal na nag yow yonent nga il faut nga gëm ne yow it sëriñ nga nga wane loo xam ne doo ko teg rek ne yàlla yàlla yàlla yàlla rek yàlla baax na rek wala su ci yàlla àndee déedéet dafa am foo xamante ni yàlla dafay dégager responsabilité am jox la yow li nga xam ne moom la la dénk loolu nag nga war cee woon jaam yàlla yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu loolu jotaay bi di leen wax nañu ñu ne namoon nañ leen waaye li ma la ay baykat lañ nekk ci àll bi wax dëgg yàlla amuñ lu dul suñ tool waaw di sant Sénégal yëpp di gërëm di ñaan yàlla yàlla def ci réew jàmm di digal nit ñi sarax képp koo xam ne nii am nga njaboot na nga fexe génneel ko sarax dugub ak kilo suukar nañ ko saraxe ndax gis naa deret yu bari tuuru ci tali bi ci at mii nii gis naa deret yu bëree bëri bëri bëri bari waaw bëri bëri tuuru gis naa ko gis naa deret yu bëri tuuru ci tali bi accident yu bari man gis naa ko wax naa ko waxati ko nag nañ génnee sarax na nit ñi di génnee sarax na ñi di génnee sarax ñi alal nañ di génnee azak di ko jox jaam yàlla yi ndax yàllaa ko digle wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa